yaa yi gis naa ne da am xarit bu bees. gisoon naa loolu am say xarit yu bees bàyyi ma mais bon. àdduna bi dégg jëlaate donc maa lay nuyu donc di nuyu ci plateau bi yëpp di kontaan di fi teew di so di féliciter Sophie keroog sa eh, jotuma la féliciter li nga li nga gañe donc yàlla na doon ay trophées yu bare bare bare incha allah te mu jig la donc di féliciter aussi Benoît di la wax ne léegi nag dugg nga ci. léegi da ngay franchement yow yaag papa léegi yéen a <laughs> voilà comme que yaag papa léegi yéen a yem <laughs> léegi ak donc félicitations à ta fille di ko ñaanal di ko ñaanal sëy barke bu baax donc may nuyu téléspectateur Sen TV effectivement troisième âge troisième âge la bokk doo fay <laughs> gratuitement rek c'est pas sérieux donc di profiter également di nuyu toute la population lougatoise dañ leen di seetaan bu baax Sophie dañ may dañ dañuy indi tout temps ay yóbbante euh, effectivement partager tout à fait waa Louga ma yi dañ leen bëgg donc dañ leen di dañ leen di béggee tout le temps donc euh, voilà nee nañ kañ ngeen di ñëw Louga defee foofu noonu gis-gis parce que bëgg nañu leen lool surtout waa HLM jox na Papa Dieng maa ngi lay nuyu waa Gadi Diagne sama famille sama belle famille xam nga rek su ma toogee ci tele bi il faut ma ma nuyu leen donc voilà donc voilà bonsoir à tout le monde ay ci kontaan nañu baax a baax baax suñu invité du jour Maya namoon nañu ko bu baax moom itamit merci beaucoup Ben et encore félicitations comme ni ko ñëpp waxee Prosper Dieye ak Sophie Père Mbaye Ngoné moo des ci team bi donc ñu nuyu ko ziar ko dalal ko bu baax a baax Père foo nekkee. star la de. ay entrée am la <laughs> entrée spectaculaire de per may ngoone Fall Père. Fall. yaa ngi ci jàmm. maa ay ca na biir. dañuy joow ay lébu noonu. macha allah ay lébu xam. gi ak joor gi rek nanu xam. moo tax dafa am lébu joor ak lébu xeeru géej. ndeysaan. dégg nga. joow bi nii la da ngay joow. mu dem ni waaw. aywa am lébu joor ak lébu xeeru géej tubaabu joor ak tubaabu géej dégg nga am na ñoo xam ne doonoo yaakaar ne doono wax ne tubaabu joor déedéet bu naa ma turé yàlla na ko sunu borom xare àjjana doonoo ne tubaab bu dëkk ci joor tubaab bu dëkk ci joor ñu ne tubaabu joor genn góoru pël la woon xam naa ne Mamadou Mansour Diop moo koy xam dafa rafetoon xees njool ba mujj waa campement ak tund woowu yépp tuddee ko tubaab ci joor ñu ne tubaabu joor waaye ñi xamul doon naan tubaabu joor bu kom turu joor déedéet dafa am ak joor ak géej dafa am lébu joor ak lébu xeru géej lébu joor mooy ñu dëkk ay jandeer wuti ci kaw ay Mbaye Dia Diop le de Diender ay góor gi Abdourahmane Ndiaye Falang ay Muuma Diender ñooñu ay lébu joor nañu ñoom Baye Modou ay ñoom mbeex ñu dëkk yoof ay Malick Niang mbër yooyu nga xam ne ñoo fi nekkoon ci booru géej gi naan leen ay lébu xeru géej ñoo dëkk ci xeru géej gi ay mbeex ak bakaro ngay dem ay ay góor mag fay ay saw ñi nga xam ne ay góor gi Mbay Saar góor gi lay Fall bu yaraax ñooñu ay lébu ci xeru géej gi nanu di dàq naak fi ba jàpp ko rey ko yéegal ko ñooñu ñooy lébu xeru géej maa ngi leen nuyu yéen ñëpp leen gërëm di leen sant di leen ko bu baax a baax di namanti ko ak yéen di gërëm la douane ci vigilance bi ngeen am ba taxaw jaar ci yoon tranché dans le juste milieu marchandise ñëw dugg ci biir réew mi gën ëlbatiku taxaw te kii walay monsieur le colonel fay yaa gën a xam kii kii xam nga ne xam nga ne à travers les médias kii xam nga ko xàmmee nga ko waaye nag dinga nga doxal yoon waaw César mu ne la confiance n'exclut pas nga contre ko mais heureusement ay nit taxaw présenter wu ñaan la ñoo xam ne ndax maa ngi woon ak sa numéro doon préparé di la woo saa waay jóg daaj ci taxaw muy proche du père waaw dama naroon na ñëw mais comme le proche du père est là ma ne teg daal di bàyyi xam ne ah, dem gànnaar waaw ndaw lu sawar moom moo ca gën a gaaw dem na xam nga maag Sofia sama doom ji gis nga ñoo nekk ndeysaan ñëw fii Sacré Cœur ñoom Tamsir soxna ñoom Kempes Jaxate Kempes Laay Jaw moo ko tuddee Kempes moo nekkoon ECIB nu koy wax Mario Kempes ah Tamsir Soxna bu Sokone le Saloum saalum joyeux anniversaire happy birthday to you naan lay gërëm bu baax dundal ba mu yàgg lool te nga nekk nag maire Sacré Cœur nga su nekkee maire Sacré Cœur après dina ma fal lan waaw nga ne su nekkee maire Sicap Sacré Cœur dina man waaw argent waaw mën na nekk ndaxte démb gis naa fa ñoo xam ne xale sama kanam na nekkee xale Badou Gueye Badou Gueye ñu ngi ko tuddee El Hadji Badou Gueye Baabu Mbenda waaw di maam bu baax a baax a baax a baax ci Moumi Gueye Dany ak Wally Seck turandoom Alaaji Badou Gueye daafaal maa ngi lay nuyu Ami Collé Mbaaya yàlla na ne yàlla may jàmm maa ngi lay nuyu bu baax a baax Pape Moussa ba Pape Moussa moom ni nga ko tuddee mm, kii ni nga ko tuddee nijaay xaw ma maamum ah, Dani muy Pape Moussa waaw maa ngi koy gërëm baax di leen sant di ñaanal nag moom da laa bëgg nag wax dëgg yàlla. Amina heure bu ñu commencé da lay bëggee bu baax Amina bu El Hadj Diouf la voice. ah Amina maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant bu baax a baax a baax mais waaw El Hadj Diouf El Hadj Diouf dama bëgg a bokk ak moom son waaw dama bëgg rek El Hadj Diouf xam nga El Hadj Diouf lii lii muy wax ni lii waaw mën naa ko. mën naa ko kay il suffit de répéter tout court ah waaw d'accord. ah waaw. Fall loolu mënut a nekk. ah Fall bëgg naa la lool mais loolu mënul nekk. waaw même le combat ce n'est rien hein. c'est répéter les entraînements lors de la compétition. le combat ce n'est rien c'est répéter les entraînements lors de la compétition. ku mu neex mënut a way de Fall. mën naa ko si mën naa ko. mën benn way rek même. nga nekk kii nekk Louga nu mu tudd ah. ba Amina lu tudd ah. ndax hmm? kii mi ngi tudd Aminata Gueye. papa nee naa la papaam daf la bëgg lool muy El Hadji bu Ndangura. Mm-hmm. El Hadji Djibi bu Mbacke Kajoor. maa ngi bu Guy Mbind. Mm-hmm. El Hadji Djibi Gueye bu Cilla moom mooy papaam mi ngi tudd Aminata Gueye di doomu El Hadji Djibi Gueye ak Ramatulaay Ndiaye. Ramatulaay Ndiaye nag. Ah, Hmm? oui lu lu wér la wax. Ah, waaw ni nga la après suma